dale na jàmm ki seen xibaaru mbatiit ubbite lalu waxtaan bu yaatu ngir daal seet ci yan anam lañ nar a awalee liggéey bi nga xam ne barab bu mel ni place du souvenir africain war na ko liggéey waxtaan boobule liñ na moon moo di gën a fesal taxawaayu barab boobule ak it xool ci yan anam la war a mën dugalee loxoom ci wàllu yar xale yi jëm ci wàllu jàmm ak it mën leen fàttali seen démb niki noonu it suuxat lépp lu jëm ci wàllu citoyenneté fi ci réew Sénégal nañ ci ànd ak Aïssatou Gueye Ba. gën a jëmmal lii di place du souvenir africain loolee di mbébétu eh, technicien ki ñuy liggéey ci wàllum culture loole waral nag ñu daal di daje tey ji ngir waxtaan si ngir bu yembee mu mën a joxe ab projet scientifique Demba Faye mooy directeur de cabinet bu ministère de la culture et de la communication. communication. waxtaan ci projet scientifique bu ministre euh, bu place du souvenir euh, woo techniciens yëpp woo borom xam-xam yi pour que ñu toog waxtaan ci élaborer un projet scientifique. ci jëmmal boobee sax mu am ñaari pàcc lu ci am solo mooy éducation ak culture Ngakan Ning mooy administratif place du souvenir africain. L'éducation et la culture sont des mamelles. Et je, je, j'ai l'habitude de le dire, c'est, c'est un mariage d'amour entre l'éducation et, et la culture. Parce que pour la sauvegarde, pour la préservation, pour la promotion de la culture, il faut qu'elle soit transmise. à qui transmettre cette culture-là c'est à la jeunesse. waaye ngir projet boobee mën a yemb mu am rek moyen bu ñu soxla Demba Faye mooy directeur de cabinet bu ministère la culture la communication. place du souvenir ci ministère bi la nekk te boole nañu ko ci budget ministère bi nga xam ne ni actuellement ñu ngi koy defendre à l'Assemblée nationale te incha allah lépp loo xam ne ni laaj na ko ci pour. tax gën ko taxawal gën ko jëmmal euh, dina dinañ ko def prévoir nañu les moyens nécessaires. ab projet scientifique boo xamante ne ñi ngi ko fi samp ngir rek gën a sàmm euh, li ñu naan suñu patrimoine culturel yile kaddu remix album bi nga xam ne kii di DJ Keman alias Sankara a ko génne doon nañu nag waxtaan ak ki nga xam ne moo di DJ Keman mu dellusi ak ñun ci album bi ak li mu ci doxee jëm ci wàllu xaat ak li mu ci fent waaw jërëjëf euh, sëñ Moustapha Dieng ma ngi leen sant bu baax ak waa Sud FM ci euh, invitation bi Kaddu euh, Remix dafa nekk benn album boo xamante ne mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñaari titres yoo xamante ne ñoo nekk ci album bi maa ngi ci ànd ak nag samay naataango slameur ñoo xam dañuy taalif kenn ki voix d'or Tos ak Kama MC l'Africain ànd si aussi tamit ak fukki beatmaker yoo xamante ne. Euh, ñu ngi tudd euh, Style Greasy Mystic Ogodem Talibé MC Fayebondi Def Bilali Bizarre El Maestro LG bu Tech jëm ak euh, Mystic Beats lu tax ñu euh, tànn ànd seeg ñooñu ndaxte beatmaker lu ci ëpp du ñu faral di feeñ ci euh, album yi dañuy nekk juste en arrière plan loo tax bii dañu leen gën a fësal te it tamit euh, mu nekk collaboration yu am solo album bi la moo tax mu wuteeki yeneen album yi mooy bi mooy album bi njëkk boo xamante ne artiste génne na album daal di koy remixé waat te bi remix bi duggee maanaam ñëpp ñi nga xamante ne consommé ñi koy ñu koy consommé maanaam rafetlu nañ ko ndaxte it nañ cee jàng lu bëri lépp jàngat la euh, boo xoolee ci euh, pochette bi euh, titres yi 17 titres yëpp dañ ko firi dañ ko traduire en hiéroglyphe hiéroglyphe nekk mbind mi nga xamante ni moom moo njëkk bi am ci àdduna depuis temps wu Égypte te ku ne Égypte sa xel mën a dem ci Cheikh Anta te man Cheikh Anta Diop mooy sama wasila mooy sama mooy sama lépp daal ba tax na lépp lu may def ci moom laay tàmbalee ci moom laay jeexalee. li fi ne tey di morceau boo xam ne fab am ndax kat mi ngi sax wax ñàkkum xëyu ndaw ñi alors DJ Kéman lu tax nga daal di tànn boobu la thématique. ci titre li fi ne tey maa ngi wax ci. Euh, maanaam dëkk bi ni nga xamante ni suñu njiit yi noonu lañ koy euh, maanaam euh, gérer mu nekk maanaam gestion bu ñaaw di wax tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon téye suñu suñu mboor maanaam suñu histoire di ko nettali ci anam yi mu gën a jubee tey jii nii dañoo gis ne ñooñu defuñu ko dañ koo jël di ko nettalee ci yeneen anam ndax lépp ngir seen intérêt personnel euh, maa ngi ci wax tamit euh, ci immigration clandestine bi ndaxte euh, soo déggee maanaam ñu ñuy jiitoo ñu ñu jiitee ngi fejoo ju tugal suñuy doom dugg gaal daw Sénégal hôpital bu amul alal duñ la tal loolu dafa nekk loo xamante ne boo génnee da nga koy gis di masawu nag ñëpp ñi nga xamante ñàkk neen seen ay doom état bi am na ci responsabilité waaye tamit population bi am nañ ci responsabilité di wax ne état bi na def lum mu war a def population bi def lu mu war a def te yaakaar nañ ne loolu dina mën a saafarawu. La patrie Si tel est notre sort, nous acceptons. En Afrique, quand on découvre des gisements, le blanc se frotte les mains. Et quand sont am na it bu tudd l'ange est noir nga ci wax diggante réew Afrique yi ak réewu tubaab yi nga xam ne dañuy wëy di noot boobu ba léegi te mënu fi dañ loo ci wax. ci euh, tiitre boobu ñuy wax naan l'ange est noir maanaam melokaanu malaaka ñuul la euh, ñu ngi ci wax maanaam euh, tubaab yi ni nga xamante ne noonu lañ ñu nootee di ñëw di sàcc lépp li nga xamante ne ñun am nañ ko ci suñu suuf si maanaam mu nekk or ak pétrole ak leneen euh, di wax tamit ne euh, am na foo xam ne maa ngi naan euh, moi je ne suis pas Charles je suis Kadhafi Obama et Sarkozy ont leur place au CPI maanaam ñëpp xam nañ tey jii ne Kadhafi ñi ko rey Obama la ak Sarkozy. donc loolu ñun dañ koy wax ñëpp mën koo xam te it lan moo tax ñu ne au CPI CPI dafa nekk cour pénale internationale ak CPI école primaire donc ñoom war nañ fa mën a dem cour pénale internationale ñu jugé leen te it tamit nañu xam ne ñooñu bu fekkente ne ci histoire ñu ngi ci bunt bi ñu ngi ci ndaate gi ndaxte li ñu def dafa doon loo xamante ne dafa ñaaw cour pénale internationale dafa mel ni africain rek lañ ko defaral donc ñooñu war nañ leen fa mën a jugé tamit waaw di wax tamit ne suñu njiit yi nañu jël lépp li nga xamante ne moom mooy intérêt seen dëkk ñu daal di koy jëfee ndaxte seen waa dëkk ñoom ñoo leen teg fi ñu toog. du yaama mu ñëloon bay tabaské sa yére korité mu metti ma lool ma daal di koy boole samay yitte woowee naa la sama gént may naa la sama gént soo meree damay naxa naxa nax ba giif booy ree sama biir bi lu ma ci mës xiif jeexale ko ak son boo xam ne wax ci wàllu mbëggeel ñu tuddee naa la sama gént waxtaan lépp jëm ci wàllu cofeel ak mandute yow koo tuddee sa gént noonu tuddee naa la samay gént dafa nekk morceau boo xamante ne de delloo njukkal jigéen ñi yàgg muñal seen jëkkër jigéen ñi yàgg dégg ñuy wax lu ñaaw euh, ci seen néegu sëy ñu muñ ko rek xam ne dañuy sëy te yàlla tax muñal seen jëkkër ba euh, yàlla def xewal tey jii nii mu nekk ci maanaam condition yu gën a baax jëkkër jàkka ji nag di ko delloo njukkal di ko sant ci li nga xamante ne muñal na ko boo xoolee ba ci fin nag maa ngi ci def benn featuring ak ku ñuy wax Lady Nas si mu way ci euh, fin bi ku jigéen ki tamit mu ngi sargal jëkkër ji naan ko euh, lekk loo bàyyi ma naanu loo bàyyi ma donc euh, di waxtaal ne képp koo xamante ne rek yaa ngi nekk ci néegu sëy morceau bi boo ko dégloo yaakaar naa ne dina defar sa néegu sëy di nga xam ne yow ak sa jabar wala yow ak sa jëkkër leneen xaju fa Didier Kayman ma lay sant di la gërëm. jërëjëf ak waa Sud FM fi léegi ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Atelier sur l'élaboration du projet scientifique de la place du souvenir africain. Il s'est agi d'élaborer des stratégies afin de permettre à ce lieu de mémoire de jouer un rôle central dans l'éducation en général, l'éducation à la paix et la citoyenneté en particulier. Suivons le reportage d'Aïssatou Gueiba. Rendre davantage fonctionnelle la place du souvenir africain est leur principal objectif et pour cela les techniciens, les hommes de culture se sont rassemblés afin de produire des résultats concrets. Ngaka Ning, de la place du souvenir africain. Sur le plan opérationnel, c'est avec des activités. Ces activités-là, elles sont diverses et comme le, le, sont les missions. Donc c'est pour ça notre ambition, c'est de continuer d'abord les, les, le travail qu'on qu fait nos prédécesseurs, mais d'y ajouter un, quelque chose, une touche personnelle. L'éducation et la culture, ces deux activités à privilégier dans la prise en compte de la dimension panafricaine. L'éducation et la culture sont des mamelles. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est un mariage d'amour entre l'éducation et, et la culture. Parce que pour la sauvegarde, pour la préservation, pour la promotion de la culture, il faut qu'elle soit transmise. À qui transmettre cette culture C'est à la jeunesse. Donc c'est pourquoi l'aspect éducation est fondamental dans tout, tout ce que le, la, la, place du souvenir. Mais pour euh, élaborer un projet scientifique, il faudrait des moyens, qui seront fournis par le ministère de la Culture, nous dit Damba directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication. Un projet scientifique mis en place dans un souci d'inventorier de conserver et de mieux valoriser le patrimoine culturel. Sorti de l'album Kadou Remix du slammer DJ Keman alias Sankara, nous avons eu un entretien avec DJ Keman par rapport aux thématiques abordées dans Kadou Remix. DJ Keman, bonjour. Tout d'abord, présentez-nous un peu donc le concept de cet album Kadou Remix. L'album Kadou Remix est sorti ce 7 novembre 2020 et est composé de 17 titres. Dans ces titres, j'ai fait des featuring avec euh, trois slammers, Voador, Tos et comme MC l'Africain. J'ai fait aussi des featuring avec beatmakers. Pourquoi ce choix Parce que la plupart du temps, les beatmakers sont reliés en arrière-plan et ils font un très gros travail. C'est la première fois qu'un album est fait en remix. Et euh, l'autre particularité est que si vous voyez la poche de l'album, il y a eu la traduction de tous les titres en hiéroglyphe. Parce que l'écriture hiéroglyphe est la mère de toutes les écritures. Même euh, que ce soit le latin, que ce soit le grec, toutes ces écritures ont puisé leur source des hiéroglyphes. Donc c'est pour appeler à un retour quand même à notre euh, source. Et quand on parle d'hiéroglyphes, on peut ne pas parler d'Égypte. Et là, on pense automatiquement à Cheikh Ante Diop, qui est pour moi mon maître à penser, qui est tout pour moi. Euh, cet album euh, aussi est unique euh, en son genre parce que euh, en certains moments, il va falloir que les gens puissent recevoir le message et tout est message dans cet album. Euh, J'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont fait savoir que cet album les a appris beaucoup de choses et ont même changé quelques comportements qu'ils avaient, que ce soit les enfants, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la politique, que ce soit dans d'autres domaines. Ce sont que des messages et là, je pense que ça répond à la mission de la musique et surtout à la mission d'Islam, c'est donner les messages. li fi ne tey un son d'actualité parce que vous y évoquez l'emploi des jeunes alors dites-nous justement donc quelle est votre réflexion là-dessus le titre euh, li fi ne tey est un titre qui parle de la malgouvernance qui parle de l'échec euh, de nos dirigeants qui parle aussi euh, de de cet échec de cette euh, de la population qui devait être les gardiens de notre histoire et qui ont fini par pervertir cette histoire rien que pour des intérêts personnels. Euh, dans ce titre de cette immigration clandestine parce que quand je dis euh, ñi ñuy jiite ngi fajoo ju tugal suñuy doom dugg gaal daw Sénégal voilà donc ça ce sont des faits réels qui sont euh, d'actualité et euh, nous fustigeons cela c'est vrai que le gouvernement a une grosse balle de responsabilité par rapport euh, à cette euh, je dirais cette fuite de nos de mais aussi je pense que la population aussi a une aussi part de responsabilité, que les gouvernants font leur rôle, que la population fasse aussi son rôle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tel est notre sort, nous acceptons. En Afrique, quand on découvre des gisements, le blanc se frotte les mains. Et quand sont assassinés des chefs d'État de mon continent, Ses mêmes mains sont entachées de sang. L'ange est noir, un autre son qui parle des relations entre l'Afrique et l'Occident et surtout la persistance du néocolonialisme. Oui, dans le titre euh, L'ange est noir, euh, je parle de cette exploitation que l'Occident continue à, à faire euh, sur nos ressources minières. Euh, je parle aussi euh, de cette manipulation que l'Occident continue à faire sur euh, nos dirigeants, principalement sur nos chefs d'État. à un certain moment, euh, vous allez entendre me dire euh, Obama et Sarkozy. Euh, du moins, vous allez m'entendre dire Je ne suis pas Charlie, je suis Kadhafi. Obama et Sarkozy ont leur place au CPI. Au CPI, en fait, euh, c'est deux CPI, Cour pénale internationale et CPI de l'école primaire, pour dire que ces deux personnalités vraiment sont à la bas, au de l'échelle de l'histoire parce que ce qu'ils ont commis comme meurtre, nous n'allons jamais leur pardonner cela. Voilà. Et aussi euh, dire que nos dirigeants doivent aujourd'hui dire non à toute cette manipulation et prendre euh, euh, comme euh, priorité l'intérêt de leur nation. du yaamu mu ñëloon bay tabaskee sa yére mu metti ma lool ma daal di koy boole woowee naa la sama gént may naa la sama gént soo meree damay naxa naxa nax ba nga giif booy sama biir bi du ma ci mës yéeg xiif tuddee naa la sama gént un son qui parle justement d'amour et de la fidélité dans un couple tuddee naa la sama gént c'est un titre qui parle d'amour on voit un mari qui remercie euh, sa femme euh, pour sa patience et pour aussi, euh, je dirais même, euh, son aide euh, pour sa tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui, euh, qui se dissocient parce que seulement il n'y a pas eu cette compréhension de part et d'autre. Donc c'est une façon pour moi de dire à toutes ces femmes, essayez de comprendre vos maris et aussi les maris, essayez de comprendre vos femmes parce que euh, aucune personne ne doit pouvoir euh, interférer dans votre euh, vie de couple en fait voilà c'est pour cette raison j'ai fait tourner dans le Samagen qui raconte l'histoire euh, d'une femme qui avait des difficultés à être avec son mari après qui avait des difficultés à vivre mais après à la fin on voit que tout s'est très bien passé Didier Keman alias Sankara je vous remercie c'est la fin de votre journal de la culture merci de l'avoir suivi